eh eh eh gargambo se mi darala de mo may sax sobu mali mi sobu mali am nga fi turo do de combat bi na 100% betenti la ñaanante nañ ku nek bañ ñu ngay ñom ñaar haluan. Gargambo si Garambanyik. Ibrahim Faye, Ibrahim James Sigewi. Ibrahima Faye Ibrahima Dieng. eh commencé na ko daw na jëli ko eh caxabal na ko daan na ko laa ilaaha illallaah doole doxul jaamu. waaw fair play